réew Sénégal ginnaaw bi ñu ko investiré ni ki démb ci teewaayu ay kilifa yu bàyyeeko ci biti moom jiitu réew Sénégal ma xam ne nag ne dina fexe ba justice daal di moom boppam waaye daañu liggéey nag ba daal di yemale lépp Sud Quotidien ne fi toll ni kay moom juróomeelu président bu Sénégal nag daal dinañu koy investir nag jébbal ko caabi ji nga xam ne rek mooy ubbi palais de la République libération dellu soit ci prestation de serment la République bu Sénégal ma nga yëkkati ay kàddoom rek teg ngeen ko ci sama kaw waaye dinaa def lépp luy sama kéem kàttan rek ba amal liggéey bu am solo bi nga xam ne rek ca loolee ngeen may xaar dinaa fexe itam jàmm ak cohésion nationale am ci biir réew Sénégal moom Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne saay bu xalaatee fu metti fi nga xam ne rek jot nañu faa jaar martyr yi nga xam ne moo leen taxoon a jug rawatina nag ñi nga xam ne dañoo am ay gaañu-gaañu ñii ñu làq leen jant bi loolee rek mooy tax nag mu ne dina def lu mu mën rek ba def ay sacrifice rek ngir bañ a décevoir askanu Sénégal Sénégal du ma ca yem nag ndax ba Sénégal ci sama bi ma nekk nag mu daal di doon dëkk goo xam ne rek ñi fi yeewoo daañu ànd ak yaakaar ba noppi nag jàmm rek di fi dox te itam nag bu indépendante la ñuy am renforcé waat lu jëm ci wàllu démocratie enquête yëglekaay dellu siwaat ci prestation de serment bi ñu doon amal niki démb ak sacrifice yu doy waar yi nga xam ne rek mi ngi xaar Bassirou Diomaye Faye ngir mu war koo doxal ngir ba bañ a décevoir askanu Sénégal yéenekaay bi dellu siwaat ci discours bu am solo bi nga xam ne rek Mamadou Badio Camara amal na ko niki démb foofee ca jam ñaajoo bëccëgu démb ji moom faaw taarix daal di koy bind le témoin yëglekaay xëy bind ci xëtam bu njëkk ne adieu Macky Sall bienvenue Diomaye ginnaaw fukki at ak ñaar yoo xam ne rek moo ngi jiite réew senegal moom président Macky Sall démb nag jébbal na lengey ki nga xam ne rek moo ko war a wuutu ci pale ba mu di Bassirou Diomaye Diakhar fay lu ñu mel nag ñu ngi ko amal ci ni ko tradition bi sàkko waral ba yëglekaay bi dellu suwaat ne Sénégal amati na ndam lu rëy nag te lii dafay firndeel ne nag Sénégal benn bopp la dërëm bi génnul gaal gi Walf Quotidien ñu xamal ne Sénégal am na premier ministre mu di Ousmane Sonko mi nga xam ne rek tabb nañu ko ngir mu jiite gouvernement bu Sénégal Vox Populi dellu soit ci duyoo bi nga xam ne rek moo war a dox ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi mu ko tabbee niki démb ngir mu doon élimaanu jëwriñu Sénégal professeur Mary Teuw Niane ñu tabb ko mu doon directeur de cabinet bu président Bassirou Diomaye Faye Oumar Samba Ba nag des di doon secrétaire général bu présidence de la République bés bi le jour àddu jëmale ci déclaration mi nga xam ne rek yëglekaay bi ne ñuy bàyyeeg Bassirou Diomaye Faye liggéey bi nga xam ne rek moom la askanu Sénégal di xaar ci moom daañu amal taxawaay bu am solo nag ngir gunge ko ci ba ndam rek daal di cay tukkee moom Ousmane Sonko nag ma ngay dànkaa fu ñu war a bokk ci gouvernement bu yees bi ñu war a taxawal nag ma nga leen di xamal ci biir yëglekaay bi ne liggéey la ñu wax waaye waxuñu nguuru fas yéene naa ànd ak ñoo xam ne rek seen loxo dafa set wecc nag ngir daal di taxawal gouvernement boo xam ne rek ay góor ak jigéen danañ ko séq ngir mën a liggéeyal askanu Sénégal ci biir yëglekaay bi di 24 heures moom Ousmane Sonko ma nga dafay souhaité nag succès bu rëy kii di Bassirou Diomaye Faye ba noppi di ko jaajëfal nag ci confiance bi nga xam ne rek am na ko ci moom ba daal di koy tab ngir mu doon élimaanu jëwriñ bu Sénégal évidence yëglekaay ne fi mu toll nii kay projet bi ma ngay door a tàmbali nag addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak Ligue 1 Lamine Camara tabb nañu ko ci prix Marc Viviane Fowé bu atum 2024 stade yëglekaay addu jëmale ci qualification CAN 2025 ak mondial 2026 yéenekaay bi dellu si ci naka la Aliou Cissé fas yéenee def rek ngir mën a réussir boobee mission